dafa ne maa tooñ rek affaire bi riir ne yii loolu mooy yii bàyyil meew. <laughs> loolu. non en euh, xam nga euh, ñu bëri dañuy réere benn mbir. gis nga monotonie baaxul. monotonie baaxul. parfaitement. Euh, am na affaire xam boo si nekk chaque jour chaque jour dafa mel ni tey benn mbër rek boo xamante ne même gars yi nga koy jox pour combat après day mujj soof. léeg-léeg nga gis mbër bu ne man diw laa mm-hmm. parce que après dafay mujj soof. Mm-hmm. et puis euh, on avait aussi envie ku nekk d'expérimenter sa côté des choses personnelles parce que boo xoolee bu baax les deux personnes c'est deux personnalités aussi. autant musicale que humaine. Mm-hmm. donc mottalante la mais ku si nekk am nga say jàpp comme ni ñu koy waxee am nga loo xamante ne moom nga bëgg a et puis defe naa ne suñu demee tam ba si biir te dañuy wax dëgg bi parce que on doit la vérité aux Sénégalais demee ba si biir gis ne que yëg-yëg bi fi newoon nekkatu fi et que seytaane dafa gaaw mën na indi affaire yoo xam day gën a ñàng ñu def pause ñu def pause jël recul mhm. pour mieux sauter defe naa ne loolu mooy dëggu léeg-léeg nga gis couple man damay wax yenn saa yi di waxtaan ak samay yenn xarit yi may expliquer seen cas booy sama jabar li wala sama jëkkër li ma nekk vous ne discutez pas souvent et puis vous êtes toujours si benn cycle il faut ngeen diversifier il faut ngeen jël recul parce que bu yàggee rek baaxul quoi suñu defuloon nii xëy na doot ñu mës a daje si àdduna donc en résumé y a problème ku ci nekk dem sa coin ngeen xoolaat après ngeen ñëwaat waa da doon wër di wax maa ko tooñ moo tax. Ah, mais c'est vrai que la question revient souvent. oui c'est vrai que s'il y avait rien. Mm-hmm. on n'aurait pas fait de pause. mais ñun ce qu'on que même suñu amee ay problème suñu biir tant que du problème mu xaalis wala problème mu jigéen entre de góor tout peut être résolu. te amuñu problème mu jigéen amuñu amuñu problème mu xaalis. maintenant mën nañ am ay malentendu parce que ay góor la ñu parce que euh, on était jeune parce que on était fou parce que am na monotonie mm mais loolu suñu secret famille lay doon ba ñuy dee succès bi bëri woon na trop succès bi bëri na xaalis bi bëri na xale yi càppa yi ak yooyu yëpp ah, bëri na <laughs> et puis bi et puis folie bi non du ñu mën a comprendre mhm. lépp mais aussi aussi on avait notre jeunesse avec les bêtises de jeunesse mhm. donc loolu aussi il ñu nangu ko mais li ci nekk dëggantaan moom xam na man xam na loolu c'est nos secrets de famille. Mhm. te góor du dévoiler secret de famille. il faut que muy des entre nous. mais je pense que le, le plus important c'est le fait qu'on soit revenu. Mm, parce que am nañu ay petits frères yoo xam ne ñu ñuy seetaan pour demain il faut qu'ils comprennent que PBS xëy na day def ay erreurs parce que ay nit kese lañ mm-hmm. mais on sait reconnaître nos erreurs. s'asseoir ne ko booy ne nga mu ne ma booy déconné nga ñu toogaat <laughs> ñu ne loo na ma ma ne ko musique loo na ma musique ñu tegaat ko ci. la plus grande erreur. Mm, mm. c'est de refuser d'accepter ses erreurs. c'est une grande erreur, c'est ñu koy fàtte. Mm-hmm.